bismillaahi ma jóg soobooti laf yu wayaat këy sët ci seex mustapha njañ mbàkke wayalaat bismillaahi ma jóg soobooti laf yu wayaat këy sët ci seex mustapha njañ mbàkke war ngir ne war war waree jëfa war moo tax ma jug jël xaliim ak daate sëpp bindaat way ma war ngir ne war-war fu mu waree jëfa moo tax ma jug wut xaliim ak daata sëpp bindaat fas yéene soobu lafu Muusaa ak Kayre du dox ba gis teenu sëñ mbay foofa laa duyewaat bagaani xol ji ci saa xol faw rekk mu sar ba ñëw ci seex Mustapha mi yàlla far teralaat waat naa ne mbax bu doon waat naa ne mbax bu doon jëmm la kon nga diru bu doon fi géej yaa ca féey ba mu jeex nga dolli luwaat war naa ne mbaax de bu doon ab taw la yaay waame xamoo dërëg jàññ foo sotteeku day tooyaat seex Moustapha Mohamed diine la ñor mooy sa cër xam-xam xam nga jël def ko muy sab làmp booy niitewaat yaay sët bu set wecc ci bàkkaar te feese ki yiw yaa topp bi njub jël nga njub def ca ràng sa baat yaay sët bu set wecc cig bokkaale buur bi ñu moom set nga ci biir set itam cig biti yaa taaralaat yaay sët ci sët te itam yaay doomi sët ba di taw yaay taaw te yaa taaw taaral yoon wi bam naataat yaa jañ lu bon ñoj ji aw yiw jox ñu ngën ji takkaay ñu jël ko ràngoo ba tax fu dem ñu naw ñu nawaat ku laal niin ku la daj daj dëggi mbër ku la xool xool dëggi gor ku la miin fu mu toll day santaat ku gëm la raw ku la foñ fu jaar ñu mbëkk ko dañ ku lay safoo dootu soof day saf xoram ne ma ku topp laa matañee ku beddi dem toog fee day mujj réccu tayit maasam dinañ ko rawaat taaif de bég nan tayit nëboo ji bég na ci yow waa ger la bég nañ ci yow bay sant tey santaat kenn du la dab cib tab kenn du la xool di la yab ku laaj nga jox ku la tooñ nga bal ko tey baalaat kenn du la dab cib taar yaa roy jikko yi muxtaar yaa baax lewet mbàkke ak cet na lay seexluwaat yaa uf njaboot gi ba tax jooyun rëfun tiituñu sunu xol yi dal nan te yow mii mbàkke yaa ñu jigaat ñëw nañ ci yow loo ñu jox lum doon ñu dal di ko def loo loo ñu tereeg duñ ko def sag bëgg lan di wutaat ñëw nañ ci yow loo ñu wax lum doon ñu dal di ko def loo ñu tereeg duñ ko def sa bëgg lan di wutaat gàllu ngërëm yaa ko yor tey jow ku dugg ci raw kuy xoole nag ba duggul du àgg fam daa mel ni sëñ Mbàkke moo del seeti dugg ci yow ngay moom te moom muy yow ngeen bokki benn xalaat Cheikh Moustapha Mohamed noppeeg joxeeg woyaf ak laabiir di muñ nga saxoo deesu la dab ci garaat say wax yi néew nan te say jëf yee ka rëy tërëyoo dis gann ci biir oyaf niw xob Mbàkke yaa ñu safaat millions yi ngay jël di jox seex Muntaxa xalifab Seexul Xaddim bég na lool ci yow Mbàkke bég na lool ci yow ba sant laxaat la Sayxuna ba daan digle nga ñuy digalaat lam daan teret mbàkke lool yi rekk ngay terewaat te it sa mboolee mi ñuy wax ahibaawul xadiim ñoo bokk pas-pas te bokkit lu di nos di nosaat lu weex la ñuy sol teg ca kaala goog baxa foo wax ni fii la defoo fee lan di far jaalaat Cheikh Moustapha yaa ñu saf yàlla nañ la saf ñu nitam ci barke Cheikh Bamba mii buur yàlla far teralaat ci barke Cheikh Bamba mii fu ci barke Seex Bamba mii buur fay fal tey ak ëllëgaat allahumma salli ala muhammad wa sallim salaam gaa yi mbaa jàmm ak salaam ba fi xew mbaa lépp ndam naka réew meeg yëngu-yëngu yile mbaa kenn amul problème mbaa stress amu fi mbaa benn xol wañaxul si noonu ngeen doxale seen écrivain préféré del si waat di nuyoo seen mbigte moo di mbigam mbindam dafay bigale fu nekk lay génne ndax polyvalent la bu mag looloo waral mu bëri soppee mag ak yu xale saalihu saalihu càppaculib maam faati reeni xolam leeru xelam xalimaam day xàll yoon xamale taalif la man bokkul ak ñiy taqalay tañaxu ber leen ko ber yi ne ngeen maytu ko yamale lëggéey fa yeeku la xam gëm ñaq ak jariñu teraanga jum terale way jur ya lay dajale yàppa di soo métier góor day sonn temps amatul te jom du jaay marché muñ mooy jàlle ak muñale ndaw day ñemee coono daw noflaay yi nuuru ci njub ngàndaay la doon xam-xam a xàmmee na buur tërale na xam ne xel koom la gëm boppam amuk kilifa yor fit wu rëy ba nga doon tàppet ragal bu tële sellal na muy wute ànd ak dal ci fàggulu lew yàkkamti yokkunu tus barke la gën bërile gindee ka jàngale yee ñuy gént mooy li nu war ndem way la nuy bige ndéem taalif la nuy rawale xelay xalaat xàll yoon gëm-gëm di yéege ku way encre ci kaw fooy di fay cerveau bi fu muy toxalee encre ci kaw fooy di fay cerveau fu muy toxalee euh, sëriñ Cheikh Diop ñu ngi lay sant bu baax a baax ci xasida gu am solo googu nga defal sëriñ Moustapha Ndiagne bàkk ci sëriñ Modou Moustapha ak njabootam ak liggéey bu am solo bi xam naa ñu nit ñuy ñëw rek feelu la ci loolu incha allah bala ñoo jox mbokk yi ma waxoon ne jàppal nosu xalim ak tàggakañ ak yemulam jébbal ko sang ba soppoon yónnee yónneenam bëggalam jàppal na su xalim ak tagg ak kañ ak yemulam jébbal ko sang ba soppoon yónnenam bëggalam lu bindkat bind bañ randamtali xarafam muy bàkk moo ko yeyoo kon yal na gétti ngalam joyanti leen naaru góor yi way yi mam mu di ba mooy ko waykat fasu taalif du mooy ndigalam waaye waay xësal génti lappe ngét di kër maduya giñ naa ne xew wi na tey seen xel xanaa du xalam jaar-jaar ya foo jaare yéemoo yéemu mbàkke la mbaa tuubaa ponkal maruur ya jàggi xalam jéggal ma bañ naa ko sëppeen boo la soobu tasab mbalaa ne jaamu la soob ba mu taaru sàngi xolam askay ci wa wasaf noppam ya la téere ya tër ngir sulli ndam ya mu feeñaalee ci sellu xelam ngoomlante ak woy juram waa tax mu ngem bu tëjug ngoomlante jeg yàlla yëllul sax ma yulli filam bañ dëgg ma dëgmalee màngi wuur yee sàkku xejj ci dak lay teggi yoon ya ñu aw yaakaar yi mag ña yolam laat joor ma ngooroon kajoor ak joora ak na mu day rus naa jawal fa këram kon soxlawul alalam dëddum guteel gaa waral mu dëddu léppi mbiram yóbbee nagaa ya xamul naa dof la mbir ma ëlam looloo ñu xéewale xaaloo jam yaxal téerewul ñuy mbam bu tax mu ne waat xaaloo di soqi walam diirub la muy dund mboolem dindi àddina bi xam nañ ne ndëndam amul buuray kaseere palam buuray kabir ab cëram ne boole waale ca buurub téere yépp mu doon waxam jëfam di colam rijjee ca suufi xol yi gaayam ya bam ne fayax mu tex ca njub koo ca gis daa teel a samp xelam defar na mbër ya ñu jag baraaya diine ji jug mu sas njabur gi la res xëy fàddu ñépp gëlëm mbañam ya yaakaar ne taalub am ngiram dana fay taawam ba jug daan ne déedéet maay ka toog ci jalam maay Moustapha duma xef feeg maa ngi ndoy yi danaa sof fam yamoon songi naalam dal di wàcc lalam maay ñot di raay bi mu jëm Tuubaa jumaa ji taxaw sëriñ si ak donga yii kum soob ma gàddu njëlam maay doomi mbër wante nag jub rek rek ma doy bu kenn tiit kenn raf bu kenn mooy ndigalam ñu xam ne xel xaloob mooy gar ci bépp côté soppeem yëbbik ndoxu kukk noon ya lañ ko sëlam tuubaa ngi jolli tuubaa ngi sulli jalooreem ak ci réew mi fu ne doom moo di bàyyi ndax jegowul bis ñi tey teralam taif ba ñaaxeen dafay riir leer ya jolli ña lay kuréel ña lay saddi way jagleel ko seeni xalim ca ñoo ña laa gisee ndaw lu teel a ñaw bu ñëwee mbubbam wayam ku ko xool day dal di yóbbu xelam xam-xam akub gëstu rek du gëstu menn poñot kum toqi teqali koo ngaak runge mbaate mbalam mbootax moo tax lefum pas-pasam mam aw te wàccu ko bis saa njorto taaru ci moom kon mën na dàq molam saa xumma xumma bilaay woo fan la fan la faree Cheikh Moustapha wala baayam way wi kan nga ci lam nuyooti naa ko dib jullit dellu santati buur yàlla moom mi def nu ay murit baalu àq de moo tax ma wut pilim jëlaat kayit kuy jullit na ma baal baalu naa képp ku dib yàlla muy bindkat mooy ki def ma aay ki tooñ lool loolu rekk de moo tax njumte far ma mën lool baalu naa ñëpp kon teg ci baale baal nu yow buur njort na ne tamit dañu baal nde yaa di dul xafuur nan ko teewe tamit ay déwén bu ñëw na dàq kon ëpp xéewal itam barke yàlla muy borom kun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen nemmiku waaye di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di ñaan borom bi lépp luñ ci liggéey mu nangul nu ko te ñu fekke ko ay at yu baree bari te yàlla nangu liggéey bi te barkeel ko barkeb Serigne Saliou xam naa xasida gi ñu fi indi woon ñu ngi ci doon tagg Serigne Touba radiyallahu anhu di ñaan mu yàlla nangu ko defal nu ci barke barkeb Serigne Saliou bismillahi rahmaani rahim bismillah lay doore sàkku ndimbal ci yàlla sunu boroomu kay boroom ndimbal julli ci yonent ba laabal màkka te kañ sëriñ bu mag bi sanc mbàkke melow jëmmam lay njëkke teg ca jikko ja ngir ndaw ñi xam ngiram ma gaawtu soobu ca nit la ku jekk bind jëmm jam yor gàttul guddul ku yam la làq nay mbir ku tuut la woon ndax nee ñu daawul lekk taqoo di woor fu mu toogee jublu penku yére yu mag te weex ñagas la daa sol te kaala ca bopp ba jekk nab sol sol daldi karbat ya ca biir nawet ba neppe ca noor ba yéemu leen siñ bàmba nit la ko am kàttan te dox ba gaaw lool ànd ak wegeel goog yéem na gaañ a koy xool kanam ga leer bay saama weeru badar fu muuñe mbégte feeñ fa dàq naqar kanam ga leer bay saamandaay weeru badar fu muuñe mbégte feeñ fa dàq naqar kàddu ga set leer nàññi neex cim noppu làmbooy njariñ du wax ñu fàtti noppu fees dell ak yërmande waaju diis ko xaajo mu faj sëriñ bi man yéem naa ko diis na ni doj woyof ba mel ni sekkiit lewen ni ndox weqat moo di suñ jiit du gëdd nit du xas du boddi kenn ku ñëw fa moom defaru sor a génn mësula wax di màttu daawul gestu lu bu rëy rëyit du tax mu xuntu coonaam yu rëy ya mësta tax mu yàndoor daa dëdd woon àdduna jublu kay buur lu mas a nekk nag ba waxtu julli day bàyyi loola daldi jàppi julli mësula tooñ buur yàlla mësta tooñ moroom ku tooñ mu baal koo siñ bi moo ñàkk moroom seeli jikkoom ku bëgg a gis ko xoolal leer yam amoon ñoom rekk doy nañ tegtal njàmbaar gu réy gam ame mang ca taaw ba siñ moodu Moustapha ma tàllal raay ba baatin ba daa faj xaajo gaañam àndaloon xool ko ci Sëñ Fàllu ka yàlla baaxe kun dëggu ga Seex Abdul Ahad wane fu ne mooy tegtalub Sëñ Bàmba mësta jur gone kuy war ragal yàlla ca moom laajte ko ndar te daal ni jàkk Seexu Abdu Xaadar rafetu jëflante ga ak yërmande ja Seex Saalihoo ko dondu cey sunu waaja Sëñ Bàmba day doone yonent billaahi ña gàntu sax xam nañu lii wallaahi natt yonent la sëñ bi mag bi ràngoo ba jot fayug nattu rëy yu rëy toggoo gu rafet fii laay taxaw fii laay taxaw ku bëgg mucc nangul soobum ngiram te roy ca mag ñam jiital natt yoneen la siñ bi mag bi ràngoo ba jot fayuk natt yu rëy yam toggoo fii laay taxaw ku bëgg mucc nangul soobum ngiram toroy ca mag ñam jiital mujj gu rafet laay ñaan borom bi nu ci barke xaadimul rasul mi jiitañu li mu bayiti mooy xurufi tuuba yàlla nañ ci làqe ngërëmal sëñ tuuba asalaamualeykum nuyoob jullit bi mat moom laay nuyoo ku ma dégg rek na ma gaawtu fay mën a góor a faal di ndogal ndogal bu nangub dogal di jëfey ndigal fu ma gis ku jub di ko jéem roy bu ma kaamilee iddmaaru fax dikk jébbulu wax su daw di ñëw xas xaslu fu ma dégg di daw di wéy li ma yàlla may sant naa ko baay bi ma yóbbu woon ci ku may xamal quraan ba tey may bind way gërëmal sa yaay ji la daan tëgal ak roggu ndaay nga ni nongu muy soq ak di ba nga màgg tey bismillah dama bismillahi dama génn bis soonu ci ëkk xel mi dem ci jàmbaar gu njàmbaaram nga yem ñépp ak jomam dama génn bis rekk soonu ci ak xel mi dem ci jàmbaar gu njàmbaaram gi yéem ñépp ak jomam ma daj ci làkkoor di xuus màndigu cofeel ci la nuur ba biir tindoo di rekk man di toog xalam bu doon gor bu doon gor dafay ab dëkk sëñ doon gor dafay ab dëkk sëñ muudu moo ko gor xerawlul ma leeral wax ji lim lenn ciy jëfam cewam sas la waayam dëddu moo dond kook jomam yilif lépp xat dëmmul dama yéenu yéemu ci fitam cewam sas la baayam dëddu moo dond kook jomam yilif lépp xat dëmmul dama yéemu ci fitam te isroon muharram wam sasin ñépp jaaxle lool la takkoon diggam boot ñépp yor lépp jiitu dem njabootuk sëriñ tuubaa mu gaw leen ci gépp wet ñu góor ak jigéen ñoom ñépp booloo ci ak wetam jumaa ji ba muy door ñépp xam nañ ni yombutoon jumaa ji ba muy door ñëpp xam nañ yombutoon ba sax am ñu doon wax moo jërul sonn ndax du am mu gar bakkanam ngir naali baayam yi yëpp mat dogoog fulla moo tax raay bi ñëw fii ci ab dëkkam mu doon taaw mu too bu doon taaw bu wuuf rakkam ya baayam ya topp ko murit yépp ñëw jaayante lum song am ca ndam gisal booba ak tey am na téeméeri at ñu mat amul lenn luñ koy sikke mooy gor te moo di jom gisal boobu ak tey am na téeméeri at yu mat amul lenn luñ koy sikke mooy garmi moo di jom ku daan jaamu buur yàlla ku daan topp yonnenam ku doyloo sëriñ tuubaa ku fees dell ak ngërëm ku jàmbaar la woon fonkoon fonk ay bokk ku jàmbaar la woon fonk ay bokkam ku daan dimbale ku jàmbaare woon fonk ay bokkam di dimbalee ku jàmbaare woon fonk ay bokkam di dimbale doon ab liggéeykat di muñkat feese dell xekkam ku jàmbaare woon fonk ku ay bokkam di dimbale doon ab liggéeykat di muñkat feese dell xekkam na buur yàlla ful say jëf sëriñ mustafal karim ci barkeb sëriñ tuubaa mi tax jàmm sax di am na buur yàlla fay say jëf ci barkeb na buur yàlla ful say jëf sëriñ muudu mustafa ci barkeb sëriñ tuubaa mi tax jàmm sax di am na buur yàlla ful say jëf sëriñ Moustapha al ci barkeb sëriñ Touba mi tax jàmm sax di am ci barkeb sëriñ Touba mi tax jàmm sax di am asalaamaaleykum wa rahmatullah